sëriñ tu xaada la walla maxtaar la woo daana wax adduna medd la ku ko seexluwul bokk ko xaji siiw na